Euh, di wax ni déglu nañu bu baax li euh, Serigne Abdou wax jëmee ko ci Sénégal jëmee ko ci wooleen ci jubo ak ormal bennoo gi nga xam ni moo fi war a am ci réew mi dañu wax ne loolu mission la te loolu mooy li jiitu ci kilifa gu nekk ak responsable bu nekk ci Sénégal ci sa mooy fexe ba yàlla musal senegal ci réeroo ak tension boo xam ni dafay juddoo ci woroo ay diine wala woroo tariixa wala woroo gis-gis ci parti politique tension yooyu yëpp ñu moytu ko ku nekk mën a doxal li nga xam ni moom mooy sa xalaat ba nuppi ku nekk ormal sa moroom bàyyi xel sa moroom te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal donc woote boobu woote bu ñu rafetlu la lépp lu ci suñu warugar di ci suñu kàttan dinañu ko dox pour yàlla antul loolu ci Sénégal surtout que sëriñ bi artu nañu xamal ñu ne bu ñu bàyyiwul xel loolu li mu gis muy ñëw ci musiba lay jural Sénégal ci ay tension ay ger civile ay xeexoo te loolu je pense que ñun ñëpp lay suñu responsabilité ñu moytul ko Sénégal surtout bu ñu gisee li mu def ci yeneen réew yi ñu wër donc di sant yàlla bu baax di ñii ma àndal nag di waa Benno Bokk Yaakaar waaso boo xam ne nii ay parti politique yu bëree ngi ci ay ay coalition ngi ci ay nit ñoo xam ne nii dañu am seen euh, martaba ba ba bokk ci ñoom ñoo ñëwoon tey di jaale si euh, ci turu président de la république Macky Sall mi nga xam ne moom mooy président Benno Bokk Yaakaar euh, li ñu fi dégg tey bi ñu indee sunu njaal Serigne Abdoul Aziz El Amin wax ko fi te tey yàlla def muy jiite kullu tijaaniya ci Sénégal euh, mën naa wax ne lu dal xel la lu sedd xol la ndax wax bu jógee ci xol dugg ci xol dafay am njariñ waaye xel nag moo koy jariñoo li tax xel di ko jariñoo lim ñu woo daf ñu woo ñun Sénégal yëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay daf ñu woo ñun Sénégal yëpp ñu joxante loxo ngir li nga xam ne nii mooy suqali Sénégal kenn du ñëw di ñu ko defal ñun ñoo ko war a defal suñu bopp kon nag euh, jot na ñu bàyyi li nga xam ne nii mooy xiiroo mooy ŋaañoo mooy xarabante tey def li nga xam ne nii moom moo am solo loolu la fi sëriñ bi wax tey te loolu la ñu ci jàpp président de la république aussi ni ko sëriñ bi waxee incha allah daañu ko nettalee noonu bu ko defee ñun ñi nga xam ne nii ay ndaw lañu ñi nga xam ne nii ay way dox lañu yàlla def ñu ba nga xam ne yàlla nañu yàlla may mat ba lii sëriñ bi wax di ndigal euh, di di di di ak ñaan yàlla defal ñu ko defal ko Sénégal gi yëpp jërë ngeen jëf. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum jógee Sénégal ak àdduna bi yëpp ba léegi nii ñi ngi nekk ci tristesse. ndaxte xëy na yàlla def na amoon na juróom-ñeent fukki at ak ñaar waaye toujours rek suñu sañoon am ko suñu wet mu continuer di jouer rôle bi mu doon jouer d'autant plus que dafa nekk nit koo xamante ne nii du nit koo xam ni benn génération wala benn xeet rek ci biir ci biir Sénégal mooy ñi mu amaloon njariñ dafa amaloon njariñ askan bi yëpp nekk homme de lettres nekk homme de science nekk philosophe waaye nekk nag nitu yàlla dëgg koo xamante nii li ñu gën a jàpp ci moom mooy dunde na science ci biir silence maanaam wan na ni ñuy du jóg di dox di wax fu ne nga dem fa fu ne nga wax fa mooy li amal njariñ askan bi mais li amal njëriñ askan bi mooy foo toll ngay xalaat loo xamante nii dafay jëmale askan bi kanam loolu yëpp nag mi ngi ko tënk ci benn message boo xamante ni tey jii Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine euh, partagé na ko ak Sénégal partage ko ak président de la République mais partagé ko surtout ak njabootu politique bi ñu xam ne rek dëkk bi ñuy tuddee Sénégal Serigne Cheikh ne na ñun ñëpp ñoo ko bokk. ki nga xamante ne nii mooy président de la république nañu ànd ñun ñëpp nangul ko cëram boo xamante nii yàlla moom moo ko teg waaye moom tamit ñaan na ko ni ko nay déglu Sénégal yëpp ba boole ci tamit parti position yi ndaxte pour ñu tabax Sénégal mënul jóge ci benn pàcc yëpp laaj na tamit parti d'opposition bi ñu nangul ko loolu waaye moom tamit mu nekk nit koo xamante nii dafay ànd ak yërmande yaatu dënd ndax koo xamante ni xas nañu la ba jiital si kanamu askan bi loolu mooy li war a doon sa taxawaay ak loo xamante ni si biir dundam moom Serigne Cheikh defoon na ko ndax bu ñu fàtte ni amal na ay relation yu particulière ak président Senghor am ay relation ak Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade ba ci Macky sàll bii xëy na fekkoon na ko mu fatu waaye nag doon na ko conseiller di ko jaarale si Serigne Abdou ñu xamal ñu rek ni parti politique du toujours danga koy créer ni par force damay accéder au pouvoir war a am damay am ay position élective déedéet da nga koy créer pour am benn cadre boo xamante ne nii di nga mën a exprimer wu lépp lu xew ci biir Sénégal nga mën ci wax loolu tamit ñaan na président mu nangul ko ko te defe naa ni dina ko dégg ñun waa Sénégal yëpp bu ñu àndee bokk di waxandoo luy jëmale réew mi kanam réew mi dina jël kanam loolu mooy digle bu mag a mag bi nga xamante ne nii def na ko waaye nag ñun waa Tivaouane la ñuy sant yàlla mooy tey njabootu Seydi Hadji Malick gi yëpp dale ko Serigne Mbaye Mansour ba ci ki gën a ndaw ñoom ñëpp toog nañu ànd nangu kilifteefu Serigne Abdou Salam ñu koy ñaanal yàlla yan bii nga xam ne yan woon na ko te nekkagul xalif général yàlla na ko yàlla yombalal mission bi